di la di la jaale li ñu bokk xanaa rek tey boo ma doon définirul personnage yu Serigne Cheikh Sidi waaw ñoo leen di delloo njaal yéen ñëpp ndax sëriñ bi ñun ñëpp ñoo ko bokk ku ne mën na ko jaal ba kon ñoo leen koy jaal di ko jaal réew mi. ne xam na ni moom dafa porté woon choix ci sa ci sa jëmm mu mu ko ah, loolu. boppam rek waaye loo xam ne lii suñu qualité xam naa day mbaaxu boppam rek moo taxoon mu porté woon choix bi euh, xam ni tamit. Serigne Touba lañu boo xam ne liggéeyal Serigne Touba rek moo ñu ñor te moom mooy taalibe bi jëkk ci taalibe te it bi mu amoon ci liggéeyal Serigne Touba daanaka weesu na pas-pas yëpp ndax baan pas-pasu murid yëpp la dajale woon def ko pas-pasu boppam kon bu mu dimbalee baaxee ñu ba dugal ñu ci liggéey bi nga xam ne moom doon liggéey sëriñ bi ak mbaaxam rek a taxoon moo taxit ñu ko ciy sant cant goo xam ne am na tàmbali mu amul fa mu nga yëgee wàccug sëriñ bi ak ni nga mel ci moom émotionnellement ah. xibaar see wàccug sëriñ bi ak ni nga meloon ak moom ah. mhm. loolu day liñ ñu ko xibaaree daanaka am na mbetteel waaye dañuy xam ne rek yàlla fi mu jaarale woon gaa yu baax yëpp rek la jaarale te mu am tuuti wuute ci moom ndaxte am na ñu bari ñoo xam ni tabarkàlla jaar nañ fi dund nañ fi liñ fi war a dund lépp ba dem wuy ji seen borom te taxawaay bi mu amoon egguñu ci taxawaay boobu ndax moom li mu bëggoon liggéey lépp lépp liggéey na desatul dara loo xam ne lii bu fi yàggoon bu fi amaatoon téeméeri at it bi mu amoon ak engagement bi mu amoon ci sëriñ bi di ko liggéeyal dara mu cee dolleeku ndaxte ba ñu ko xamee ba tey ci liggéeyal sëñ Touba booba tuddagul xalifab sëñ Baara bay tudd xalifab sëñ Touba ndax xalifab sëñ Baara yàgg na koo tudd 90 ba léegi mooy xalifab sëñ Baara waaye la dogal sëriñ ci yoon wi lu jiitu loolu nag ku ko miin ku ne xam nga ni ci liggéey rek nga ko xamee ak pas-pas bu dëgër ak jom ju dëgër ak fit wu wu rëy boo xam ne liggéeyal diine liggéeyal lislaam topp tànk yi nga xam ni fa la maamam jaaroon rek. ku ni bokkoon na sa yéene mu nekkoon yéene murit yëpp. mooy tey lii mu jëloon tey teg ko sa loxo nga ànd ci ak murid yi mooy projet Massalikul Jinaan bokk na ci sa yéene ak yéene murid yëpp tey mu yëggee euh, mu fekkee ko mu ànd ak murid yi jiite leen. ah fekkee na ko ndax yegg na ndax boo umpulewul la fa xew la fa ne lépp xam na ko xam na ko ci saa yit xam na ko ci baatin bi ma ko mujjee gis ak léegi ci fukki fan ak nangam wala ñaar fukki fan lay toll kon la fa ne lépp xam na ko nit ñi nag dañoo jàpp ni eh, eh, xam-xamu biti rek la ñuy xamee déedéet moom reesu na woon xam-xamu biti xamoon na bu wér-wér xam-xamu biir dara umb ko ci te liggéey bi daanaka lépp nuppi na kon nuppi na ci kanamam leneen la nag day mbiru biir moo xam ne bii moom xam na ko waaw. ginnaaw fi la sëriñ bi tegoon. murit yëpp xam nañ ni foofu la la sëriñ Mountakha Mbacké teg ci lu wér tey sa relation ak sëriñ Mountakha wala boo ñu doon wax dara ci Cheikh Mamadou Mountakha qualité. relation relation ak sëñ Mountakha boo ko tuddee noonu day mel ni kuy am relation ak moroomam sëñ Mountakha du suñu moroom suñu sëriñ la suñu yaakaaru tey la suñu yaakaaru ëllëg suñu yaakaar la woon démb bi tey laataa ñëw relation bi am daal moom mooy sëriñ bi ñun ñooy ndongoli relation boobu rek a ci am. waaye ku ne xam na cofeel bu particulier ci sa jëmm ji. waaw sëñ bi. cofeel waaw cofeel googu wér ndax biral na ko àddina bépp waaye cofeel googu nag bu mu doon lu particulier rek ñu bëgg ko moomale sëñ Muntaxa ñëpp la sopp ñëpp a ko sopp ndax noonu lay doxe noonu la mel sopp gi nag du sopp suñu bind moom lu muy sopp rek day fekk lu mu nekk loo xam ne lu jar sopp la ci pas-pas ak taxaw foo war a taxaw ak tamit nekk ci sëriñ bi ndaxte ku mu sopp rek ci biir sëriñ bi la la soppe ndax du sopp kenn lu génn sëriñ bi ñi mu sopp ñëpp ci biir sëriñ bi rek la leen sopp